asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy ci internet ba rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal àq di leen baal àq di leen ñaanal jàmm ak ak saadatu daaray ni di ko sàkku ci yéen mbokk yi bis dem ñu ngi woon ci darsi bi jàlloon doon ci waxtaan ci nit buy naaw rawxaaniyam mooy naaw bu dee ci gént nag kiiraay nga xam ne moom la kiiraay nelaw di yiir jismaaniya maanaam jëmm ji nga xam ne ruux ci lay ëpp itlaaxam moo tax ngay gént di mën a gis jinne wala ngay gént mel ne ku nekk barsàq ak ñi faatu wala ngay gént ci dem ci yeneen aalam yoo xam ne dégg rek nga ci am te di ko yëg gént di naaw nag bu fekkee ku tawat moo moo moo ko gént wala ñu géntal ko ko mën naa tekk ruux gu yéeg maanaam dig bu jege rawati nag rawatina nag boo géntee mu naaw ñu ubbi asamaan si ñaare lu mel noonu ruux guy texe ruux guy texe moom lañ lay misaale noonu maanaam ruux goo xam ne ku euh, nar a dem àjjana ñaare moom ngay gént gis ko mu naaw jëm asamaan wala ñu ubbi asamaan yi ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe ci alquran kalla inna kitaaba al abraari la fi alliyin ci misaal nag bu fekkee ruux la koo xam ne narta taxe masalan mën nga gént gént yu mel ni bu fekkee ko xam ne ko tawat la mu gént ko wala ñu géntal ko ko mën naa tiit ci boppam maanaam muy naaw ci fu lëndëm lu mel ni xunt bu xóot te teen bu lëndëm jëm suuf ñaari lu mel noonu màndargam ruux gu narta la ne ko alxuraan waxe kàlla inna kitaabal fujjaari la fi sijjiin ku mel noonu nag ñaare mën nay sukuraat sukuraat su metti sukuraat su yàgg sukuraat nag barab la boo xam ne barab ba mat a bàyyi xel la te moom it mën nga ne sax beneen aalam la ndax li ngay yëg di ko gis nit ñi mën nañ koo bañ a yëg kon baax na nit bu tolle bu demee ba toll foofu ndax nit ñu ne mën naa sukuraat ay at mën naa sukuraat ay weer mën naa sukuraat ay bis am na ñoo xam ne seen sukuraat ay minutes yu néew la sukuraat nag barab la boo xam ne mars nañ ci raxase ay bakarit ndax am na xeeti tëraay yu yàgg yoo xam ne raxasukaayu bàkkaar la loolu it tawfiix la moo tax ñaare baax na ci ku nekk ci barab boobu muy barabu sukuraat ngay faral di ko jàngal sooratu yaasin moom it lu mën a seral sukuraat la di ko ko faral di ko jàngal di ko ko tifle ngent di naaw ba tey am ñu lay dàq bëgg laa jàpp ñaare lu mel noonu saytaane ñu koy wax dëmm dina koy def ndax yàlla xamal na leen ruux ak doomu aadama fuñ ko mën a fekk bu nelawee ba mën a jëflanteeg moom loola ak ginne ak yeneen mbindeef bari yoo xam ne yàlla may na leen loolu mooy tax ñu mën a jonjog yow ngir jàpp la loolu ñuy téye ci nit na nga xam ne moom la ñuy dàq noonu ci nelaw ngay ngay yéeg di daw bu ñu demee ba jàpp lool la bu ñu ba jàpp la sarawxaaniya sarawxaaniya su ko defee nag ci nañ lay mën a fexeel dëgg dëgg dëgg ba keroog ñuy faat nit moo tax doomu aadama ruux moo ëpp solo ci moom daanaka moo yor lépp. loolu nga gént nag gént di naaw loolu mooy sa rawxaane loolu lañ ñoom loolu la ñuy bëgg koo jàpp bu doon ci njaxare ne ñu def ay pexe bëgg laa fiir loolu it lañ soxla xanaa buñ ko jàppee rek mel na ni jekku nañ la lu mel noonu nag ñaare bu fekkee dëmm la lu mel noonu ñi nga gis ñuy naaw di la dàq benn man ngaa gis ay nit yu yor laaf wala bokk ñuy faral di làqatoo ci xeeti ñaraw yi nga xam ne dañ koy faral di ko làqatoo ni ki lu mel ni tan wala looy wala xeet yu deme noonu eh, ila axiri te ñaara gént googu balaa jeex sax da nga gis ñu soppaliku nekkaat nit wan la ginnaaw waaye nag lu jafe la nga nga dem ba ba gis seen xarkanam ba xàmmee leen buñ soppikoo xanaa waxtu woo xam ne boo demee ba jekku leen moom ba nar leen a faat mën nañ laa wan seen xar kanam ak yu mel noonu ba te gént dinaaw ñu lay dàq mën naa tekki ko ñuy fexeel maanaam koo xam ne dañ laa bëgg a takk liggéey wala ñu bëgg laa jabar wala yu mel ni def-def yu mel noonu it gént dinaaw dina koy faral di ko misaale nga bàyyi ci sa xel bu baax a baax incha allah buñ dikkaatee ci benn jaxtaay dan danan am yeneen tegtal yuñ la ci dolli ngir nga gën cee man ak ubbi ko allah kon ngay way day abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkati wassalaamu